baax di leen jaajëfal tey nag ñu ngi fii ci Pikine seet si ndaanaan champion muy Sokh démb mu doon jàmmaarloo ki nga xamante ne mooy gàmmu Gueye yàlla may ko ndam xañ ko gàmmu Gueye nee naa leen làmb noon la ndam day génn wala ndam dugg mu nekk ñaari ndaanaan yi nga xamante ne nag ñoo doon daje ñaari xale yi yaru ñaar ñoo xamante ne àdduna ñoo leen bëgg di wax Sokh félicitation di encourager ki nga xamante ne mooy gàmmu Gueye Sokh nag kenn dut ko présenté dama koy bàyyi mu nuyoo adduna ak fan sa meeg soppe meeg ak ñi nga xamante ne tey jii ñoo doon sonn ci moom ak pikin gii ñu ko fekk mbër maa ngi lay nuyu di la Pël ñu ngi lay siyaar di la fay bu baax di wax onze millah la bisimilah ina wàll yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul may sant sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax suma sëriñ suma xarit di ñaanal suma papa baay Murit Mbay maa ngi koy ñaanal bu baax tawféex di ñaanal suma yaay di ñaanal waa Pikine di ñaanal waa ginnaaw raay bi ma dëkk di ñaan yàlla na jàmm yàgg senegal waaw. mbër nga nekk di préparer combat préparation bi yàgg lu ko manqué mu mot deux ans bëriwul wala sax ñu ne deux ans te yàlla def la six jot nga génn si balaa ñoo ñëw ci komba bi sa diggante gàmmu gi wàccaay bi naka nga ko doon dundee. durant mbas bi ñëwee avance bi yàgg seen loxo lool nan nga doon dundee wàcc waaw santaat Serigne Touba rek santaat yàlla bu baax xam ne metti woon na mais tamit xam nga taxul ñu saalit taxul ñu wax lu ñaaw taxul ñu xam nga wane benn yoon faiblesse lii rek lañ ci bëggoon mu ñëw ñu teg ko fi ñu ko war a teg suñu borom defal ñu ci ndam ñu xooli leneen te yàlla defal nañu ko ñu ngi santaat suñu borom bu baax du suñu mën-mën du dara yàlla moo ñu kàttanal bis bi rek woon nit ñee comme xam nga nit ki moom li nga war a am da koy am ci àdduna comme yàlla dogal na ndam laa ci waroon am te am naa ko maa koy sante suñu borom bu baax di encouragé Gamou Gueye di ko wax ni ko champion la soq daan la te rew laa waaw di ko encouragé waat bu baax di ko ñaanal tawféex. wàccaay bi mun nañ xam naka nga ko doon préparé ndax gars yi nee nañ Gàmbi nga ko doon waajalee te da ngay faral di wax naan Gàmbi mooy sa États-Unis naka nga doon waajalee combat bi loo taxoon génn dem Gàmbi. waaw di sant waa Gambie rek Gambie suma États-Unis la parce que Gambie fierté la ci man quoi ndax su ma fa demee dama fa am ay am di jàmm ku ci mel ni suma papa Djine Mori suma papa Boy Melax ak ñoom Kunta Junior xam nga suma mag Moustapha ñoom góo gaa yëpp dañ ciy jàpp marché Serekunda bi ci kaw ba suuf ah di bëggee suma coach bi ala xam nga ndax combat bi daj na teg na ma si coono yu méttee métti wax dëgg fa neex yàlla xam nga ay ñoom Bildin ñoom Malick ñaa maa ngi bëggee gaa yëpp ah di wax ni combat bi metti woon na ndax combat boo toog ñaari at bëre woo metti na ci xale mais tamit ñu gëm ko rek toog di muñ di sant yàlla ba yàlla dogal bëri nañ ko démb yàlla defal ñu si ndab ñu ngi santaat bu baax rek. soo ko di ndaanaan nekk xale nekk ci yoonu làmb pour soo ko jël avance su Gamou Gueye ñëpp favoriser Gamou Gueye ba mu mel ni say communication da doon feeñ ndax da doon wax ne mbéjub kanam borom moo koy fajal boppam euh, tey bi nga déggee ñu favoriser Gamou Gueye sa kaw loolu nan la def ci yow en tant que yow mi nga xamante ne yaay mbër mi yaa jël combat waaw bi ñu favoriser Gamou Gueye man sama xol daa sedd rek ndax dama xam ne jëluma yaafus mënoon naa jël mbër moo xam ne kuñ ko tuddal ñu ne ak soq da koy rey mais damaa jël mbër mu fi ñëpp bàyyi muy Gamou Gueye ndax wax dëgg fa neex yàlla wax sa mbaax waaye wàññiwul dara ci sa mbaax Gamou Gueye champion la ndaanaan la te amul combat bu musa yomb ci àddunaam man yaakaar naa ne démb lay doog a bëre combat bu yomb comprendre nga te amaana yàlla suñu borom moo ko bëggee noonu moo ko tuddee noonu waaw comprendre nga mais man li may wax rek ay Gamou Gueye bàyyiwuñ ma woon ci làmb te dama xam ne fi ma nekkoon du sama place te il fallait que moo wone beneen xar kanam boo xam ne tey fii ma nekk nii loolu moom moo fay jëlee comprendre nga mais instant yi liy jot jot na ndax bëri na ak sama morom yëpp. mbër yi ñuy wax ni dañoo dëgër bopp ci làmb ñëpp bëre na ak ñoom ñëpp sama génération bëre na ak ñëpp waaw li des mooy xool fi may teg sama tànk gars yi ñëw mu bëre ñoom jëflante ak ñoom ndax daa am fu ma war a dem ci làmb. loolu ci ñëw euh, préparation bi yàgg bi nga ñëwee stade ñu gis ne amoo benn stress mu mel ni la nga doon wax da nga koo jëfee ñu waxee rek nga ne le 6 incha allah ma daan gàmmu ngay dem ma daan gàmmu ngay dem le 6 ñëw nga defee ko ni nga ko waxee. lan la confiance bi lan la woon daa am lu nekk si ginnaaw wala da nga jàppoon ne que tey gàmmu géey mii faaw nga faxas ko rek mu daal di jàll nga nekk ci leneen. waaw mais loolu la rek loolu la rek parce que tey li ma doon wax noonu gëm-gëm la ci man waxuma ko woon ngir lëre gàmmu géey waxuma ko woon ngir lu ma gëmul ndax man lu ma gëmul du ma ko wax bari suñ Tuubaa maa ngi wax gaay ni leen loolu ma doon wax noonu tey laa ci gën a taxaw tey laa ci gën a dëggu dama pare pour nekk champion ci làmb teg caaxaanatuma ci làmb waaw bépp mbër buñ ma mën a jox suñu jëflante ak luy mën a xew di nga xam ne xale bu soxla ngay jëflanteel loolu rek moo wér te wóor. gàmm gee ngeen taxaw arbitre sifflé mu mel ni xeex la la indil nga daw xeex bi ndax nee na ñaar ñooy xeex mais indiwoo pour xeex ak moom ñu gis ne dalaa cookaas gauche droite nga mbaar ko mu wàcc lan moo tax nga daw xeex bi sa diggante gàmm. non gàmm gay amul xeex bu may daw ndax man xam nga làmb ji li may wax rek lépp laa pare woon pour def comprendre nga mais dama xam ne xeexkat la te bis bi li ma fa indi démb ñëw ma woon pour lenn lu dul daan rek dem ñibbi ak nu ma mën a daanee Gamou Gueye dama ñëwoon pour daan ko rek dem ñibbi xam naa ne day xeex te xam naa ne bëre bi moom xeex la ci am ma rappel ko góos mu maam ma daw arrière mu yaakaar damay arrière ma fixé wu yéendu ko muy daw di ma song ma dajeeg moom ci kaw fàqet ko mu dëpp parce que xam naa def ci boppam parce que ñun làmb am nañ ci ay ay ay techniciens yoo xam ne yàlla dénk nañu leen ku mel ni moo sama entraîneur barke arxuraani karim balaa may bëre Gamou Gueye dafa ma résumé ni may bëre moom ah nee na ma Gamou Gueye mii boo fixé woo ci devanture bi di xeex ak moom moom moo la ëpp mille sens parce que moom bu sampoo fi mu samp noonu bu déplacé wul bu ngeen xeexee foofu moo la fa ëpp avantage parce que bu sampoo ñàkk assisam du feeñ mais boo ko déplacé day assisam da koy réer comprendre nga mu ne ma boo ko déplacé pour nga daan ko day yomb te boo ko fa déplacé boo boo geste boo def mu daanu parce que Gamou bu suude woo taxaw ci lay am danger mais bu déplacé woo amatul danger te ba ma waxee loolu dama ko liir ci biir bëre bi ma Gamou Gueye dañoo taxaw ma déplacé wu mu topp ma ma déplacé waat mu topp ma ma gëdd ko avancé mu arrière mu am problème parce que déplacement yi ma def ci biir bëre bi daf cee commencé am problème parce que moom miinul di déplacé wu moom day miin rek fixé wu taxaw di bagaar ak yow comprendre nga moo tax bi ma ko cokkaasee mu maam di ñëw ma arrière bi ma arrière deux pas damaa fixé wu taxaw yénd ko mel ni kuy xeex mu daw ma yooru ko fàqet ko mu dëpp waaw parce que bis bi loolu dong moo ma ci ñoroon daan gàmmu koy dem xooli leneen yàlla defal na ma ko maa ngi santaat yàlla bu baax waaw. Euh, avant lamb ji damaa dem ci colis yi dem say colis dem ci colisam ma fekk sa rakk ma laajte ko combat bi lan geen indi mu ne man dam laa ndax ni ma doon ñëwee combat ax bii bokkul. xam naa li ma liggéey ak Soko Gambie yee naa ko heure bu nekk tey ndam rek laa indi muy paa bi ma dem kolisu gàmmu gee fekk fa Youssou ma jël ko ma laaj ko ci combat bi mu ne boo teelut a jébalu gàmmu dina la dóor ba gaañ la alors que loolu noonu amul tey ñaari version yi lan nga mën a wax diggante Youssou Ndour ak paa bi. waaw paa moom li may wax rek mooy suma raq la ñoo bokk nday ak baay mais xam nga. tey ki dem ngeen bokk ndey ak baay mu wëlbatiku ni man sama mag laay tuddee sama bopp tuddee ma boppam kon kooku xam nga kooku wax waxu dee ci man waxatuñ ko bi ma nekk damay dem Gambie dañ ni ma foo nekk dinaa la fekk barki yonenti yàlla Muhammad laa laatal Gambie dama doon tëdd sax feebar ba du ma mun a jug barki salaatul fatiha mu ne ma bu dee dañuy dem nga dee ci saal bi sax di nga dem barki alxuraani karim comprendre nga te sama raq-raqaat la comprendre nga di ma teg soog damay ñëw du ma mën a dem mu jël si ma quatre heures du matin heure boo xalaat yeesi na ma ko barke alxuraan pour ñu dem entraînement su ma waxee mu ne ma man lijjantiwu ma sama bopp fii nga nekk heure boo fi jugee bu la neexee lu la neex defal mais fii nga nekk da nga fi war a jugee soo gem su ma rax moo dem xam nga ba am esprit boobu noonu kon man tey dama war a gën a rayaat bopp comprendre nga moo war a gën a rayat sama bopp te xam ni tamit wax na dëgg am naa raq boo xam ne mu ngi màgg di ñëw yàlla na ko yàlla lafal cat xam nga mu doon xale boo xam ne ku bëgg ay grand frère am nangul ñu tamit nangul ñu lépp luñ ko sant suba ba ngoon jot da def comprendre nga maa ngi koy ñaanal yàlla lafal ko cat xam nga ndax xale bu am bëgg-bëgg la lii mu nekk nii da koo bëgg comprendre nga beneen côté bi xam nga Youssou Ndour bu lébu gi bu nee moom gàmmu gay daf may dóor ba ma tëdd jébalu sam bopp loolu waxu làmb la rek maa ngi koy nuyu au passage xam nga champion la bëri nañ yàlla defal ma ndam ci kawam comprendre nga mais terewul tamit xam nga peut-être nit ki moom boo faree ci moom nu la neex mun nga koo waxee du ma ci balaame kenn ndax foofu la far bu ko neexee mu waxee noonu mais waxul làmb la woon rek yàlla may na ma ndam ci kaw Gamou Gueye ñoom ñëpp ay champion lañ maa leen di ñaanal taw tawféex rek waaw. Euh, seen promoteur laa ñëw muy Baba Diawa ah. bi làmb ji yàqoo ñu jëlaal leen ngeen toog mu ne woon dina leen dolli xaalis gars yi ne dolli na leen ñii ne dolliwu leen lan nga ñuy wax ci combat nan la ginnaaw bi mbas bi jeexee ñu jàppalaat leen dat am na nu mu def yéen waaw wala déet ndax gars rek ñu ngi naatable ne waaw loolu am na wala amul loo ñëw. non làmb ji moom làmb ji moom boo bëggee dégg dëgg soo bëggee dégg dëgg gàmmu gay jotul xaalis sook jotul xaalis ah man sama bopp laa mën a ziide comprendre nga mais nag góor su nekk góor nga man Baba Diaw li chaque jour rek du ko balaamee ci dara. ndax ndaw la boo xam ne ay propre moyen nam lay demee ci làmb su làmb ji yàqoo amul ndimbal kenn taxawu ko amul sponsor amul dara man bu ma joxul cent franc damay bëri ni ma ko waxee woon démb noonu laa ko waxee te noonu laa ko defee xaaruma woon ci combat bi dara man combat bi li ma ci bëggoon mooy bëre ko mu wàcc ma ma dem bëre ji yeneen combat parce que yàgg na ci man te xale laa aw ma droit wu toog di toog ñaari at du ma bëre loolu jigul sax mbër buy fay ko ay millions waxuma la ak bi nga xam ni mooy loolu noonu waaw comprendre nga Baba Diaw dama koy ñaanal tawféex waaw ndax nit ku baax la nit ku am ngor la waaw defaluma dara joxuma benn dërëm mais nit ku am ngor la nit ku baax la parce que tamit xam nga nit da nga koy seedal jikkoom du cadre que daf ñoo tëgg combat bi yàqu mu tëggaat ñu jàppaat dat daf ñoo war a jox xaalis joxuñu ko parce que tey ku wéet xam sa bopp waaw peut-être loxoom moo jotul ginnaawam dañ koy comprendre ndax ñun ay taalibe suñ Tuubaa lañ xaalis du ñu tax a jàpp nit du ñu tax a bàyyi nit te xaalis du ñu tax a wax lu ñaaw tamit waaw dama koy ñaanal rek xam nga yokkute ba li mën ren déwén mu mën triple bi waaw. d'accord loolu leer na Baba Diaw ñu ne euh, problème bi mbëri dañ koy am comme tey fi nga toll nii su ngeen di bëri da ngeen di bi je pense que làmb ji amoo leen problème bi ndax seen parrain daa taxawoon ne dina leen may ku ne ñaari bolog bi palaas yi ñu dégg na yokku na bolog yi léegi ci bolog yooyu nan la demee sook daa am problème mu bi parrain bi jox na leen bolog yi leen digoon waaw wala déet El Hadj loolu sax man mii am naa ci problème ndax ñu bëri dañoo yaakaar ne dañ maa jox ay billet ma def ci code te yàlla mi ma tim xam na ni kenn joxuma billet. El Hadj Keita joxu joxuñu billet par la suite woo na ma ni dafa nekkoon ndar te c'est vrai mu ngi woon ndar comprendre nga mais nag dig yéene la amoon wax ko peut-être ci lim nekkoon moom moo tax defu ko du ma jàpp ni daf ñoo wax loo xam ni mënu ko wala benn affaire. ndax yaakaar naa ne ku taxaw publiquement ci public wax dara soo ko deful nañ jàpp ni tey nit ku nekk nit nga peut-être ci activités yi mu nekkoon moom moo taxoon amul woon temps bi mais suma frère la woo na ma waxtaan ak man ni ma kat sook ci lii laa nekk ak lii ak lii ak lii mais yàgg gàmmu gay yëpp su combat bi jàllee dinaa jëflante ak yéen li ma waxoon waaw maa ngi koy ñaanal tawféex moom di ko ñaanal xam nga carrière bu mucc ay waaw. soq génn ci Nandi Fall ñu ne combat euh, victoire boobu jaru nga koy manifester du victoire te ñu jox la Gamou Gueye àdduna yëpp doon xaar combat bu rëy ko nga ñëw prouvé nga génn ci euh, fan la soo ku teg ay bëtam ginnaaw bi nga paree ci Nandi Fall génn ci Gamou Gueye mu nekkoon tox xam ne da nga koy faxas mu jàll instant bi ñan ñooy say adversaire potentiel non samay adversaire potentiel moom boo bëggee dégg-dégg saa Thiès ak Moussa Ndoye bi ku daan ak ku daanu laay xaar rëg-rëg ak guy gi ku daana ku daanu laay xaar ma fi kenn ama neex ak lagros Rose ku daan ak ku daanu laay xaar gis nga ñetti combat yi ma la wax nii su ma bërewul ak ñoom mun naa tekki sama ngeen bàyyi bëre waaw ah, ndax nekkuma nekk nekkuma fi di bëre samay morom ba kañ seize combat laa bëri ñi ma bëreel ñëpp samay morom lañ amul kenn koo xam ne bëri naa ak moom ñu ne kii paa la soq da koo jël pour wut yoon amul kenn koo xam ne jël naa ko te newuñ ndaanaan la Pape mbaay ku ko gën a nekk ndaanaan doo ko génne suñu génération mobile 2 ku ko gën a nekk ndaanaan doo ko génnee suñu génération comprendre nga dama bëreeg ay champion bëreeg sumay morom ndigal bi ma koy jël ñëpp ko fi ba Rambo bi ma koy jël daanuwul comprendre nga bu may lim fii la ñuy fanaan dama bëreeg sumay morom booy yi gën a dëgër bopp ci làmb ñi ñuy wax ñëpp dama bëreeg ñoom munu ma nag bëreeg samay morom ba keroog may tekk sama ngemb comprendre nga ñii nii fi nekk nii Sa Thiès ak Moussa Ndoye ku daan ak ku daanu moom laa bëgg a bëreel comprendre nga ama neex ak Lac Rose ñoom ñaar ku daan maa ngi lay xaar comprendre nga guy gi ak rëg-rëg ku daan daanu maa ngi leen di xaar su ma bëréwul ak ñooñu jaral ma tekk sama ngemb waaw ndax ndax combat yi nii dama koy jël daj ci ay coono teg samay mbokk ay coono Pikine duñ nelaw man bu ma xewlee ñëppay ñëppay sonn ba pare mooy bëre combat yi du yoon bu ma leen di teg fitna dama leen di teg fitna ci combat boo xam da koo jar waaw ñooñ ñooy sumay adversaire su ma bëréwul ak ñoom mun naa toog bàyyi làmb sax xooli leneen léegi nag xam naa ne ci tëj lañ jëm mais balaa ñëw tëj damay jox l'enfant ndax xam naa ne instant bi gémmiñ baa ngi raf mu sànni ci tuuti kàddu wax ñu mbër bi nan la doon waajalee ak ñan la mbër bi war a bëreel l'enfant bu fi comédie nag non pël pël maa lay ziar bu baax a baax ah, wax na wax bi yëpp wax na wax bi yëpp mu lim ñoo ne ci kanamam waaw soog dafa egsi mu bëre gaa dafa egsi booba tey muy maye sens Gamou Gueye mii xam nga ne sox Gamou Gueye dañ ko may saas Gamou Gueye am lu ñu booleeg moom rek Nandi Fall daa am lu ñu booleeg moom Gamou Gueye sox du làmb neexul wax nag mais du làmb waaw. yéen ñu ko jàmm ragal fee xañ a wërsëg su may yeewoo yéen ñu ko jàmm te moom laa bëgg maa moom du làmb dafay yàgg yàlla na jëm ci kaw sa kanam ay ndam yi ndam ci barki Seydina Mohamed. ayca baax la daal anyway yee dafa nangu neexal liggéeyal xam nga loolu la mm-hmm. lu ma defoon si moom lu raw loolu laa fekkaat si moom waaw mm-hmm. dama dee ñëw Sénégal nag waaye first time ma ñëw Dakar yee non kaa ko atte fële ne soq bu xeexee daa simmeeku mën a la samaay dem làmb ja bëggal waa Pikine ñëw kon waa Pikine kon waa Pikine yaa dégg maa ak yow kii du def dara fii la ca alaya bii la wuy ma ca tafega ca jawrin la rang muy gaaw tous bu xaay rek ñor na ñun duñu ragal ñun Pikine boo ki Serigne Bamba ragal ragal du fi yeewoo yaa dégg maa yow mais kii xolam moom kase moom moo ko waral ak Jacob Baldé ñoom ñoo ma indi stade démb ndax parce que ay boo yoo xamante ne lañ ay boo yi gëm seen bopp te ay samp kii Pikine kenn gënu ko ko kenn gën koo doon champion Pikine bu fekkee bëre kenn daa ko bëre Pikine comprends point yow kon dama bëgg waa Pikine ñu mobiliser jàppale ñu doq mi moo tax démb ma rey sama bopp si meeku stade jaayu yëngal ba mu yëngatu moom barke alxuraane karim ndax xolam. ndax parce que ñun ay doomu Pikine lañ yaa ngi dégg fu ma ak yow waaw kon nag solidarité bi comprendre fu ma ak yow dafa war a dañ bu soog amee combat état dafa war a bloqué Malick am komba mu bloqué waaw. ayca mu ngi noonu ah. mun nee naa leen ci mafia bi la mënut a ñàkk euh, soog a ngi noonu ndaanaan bi. ay mbokkam ay jege ñaalem ku nekk sànni nga ci kàddu dama koy bàyyi rek mu tëj tàggatoog mbokk yi ak ñi koy seetaan à travers Baol TV ak ñi koy bégee mbër ma bàyyi la rek nga tàggatoo tàggatoo moom ah, damay sant mafia bi rek waaw di gërëm ñëpp di sant waa Pikine di sant waa Guinaw di sant waa Tali Bees ndax tali bees moom combat bi dañ ko jëlaloon seen bopp quoi waaw dañ ko jëlaloon seen bopp xam nga gis naa ñëpp ñëpp a ci jàpp ñëpp ñëpp ñëpp di bëggee mafia bi yëpp ñoom aada kafe xam nga gaa yëpp maa leen di bëggee bu baax a baax a baax di gërëm jëwrin mi xam nga waaw ndax suñu grand bu baax la wax dëgg fa yàlla moom Pikine rek moom moo ko ñor du soq du Malick Ndiaye du Ama du Boña du kenn xam nga tey bu nit bu nit naree dugg ci erreur sax da lay woo cadré waat la comprendre nga kon xam nga ay ñoom torok ay ñoom mbës bu ndaw xam nga démb mbës dama gis mu def loo xam ne man mun naa ne sax mosu koo def ci làmb barke Serigne Touba xam nga gars yi defalu ma leen dara dara defalu ma leen ko wër na Serigne Touba bu weesoo toog bi ñuy toog fii di waxtaan defalu ma leen lu war a tax xam ga ñuy jaayante yenn yenn xam nga affaire yi ndax man mais tamit loolu lépp sant la quoi parce que ñun ñëpp ñoo dëkk te jàmm lañ yéenante xam nga yàgg nañoo nekk si yeneen yu bokkul ak sax ay làmb tey ku ci romb sa morom muy dee ci àll bi da fay dee kon du ay làmb lañ àndee ndax ñun ba ñuy xamante ay booy lañ ba léegi ñooy ànd comprendre nga kon ay sant ñëpp di wax ne xam nga du ay daan Gamou Gueye moo ma bàyyi ci làmb victoire bi defuma dara defuma tous su ma barke alxuraani karim billahi wallahi taala bi ma xëyee damaa dem entraînement ñibbisiwaat ñëw toog jàpp sama ñaam parce que du lii moo ma bàyyi si làmb dama ko doon wax o départ man leen fii ma nekk du sama place ci làmb ay daan gàmmu gay yóbbuwuma fenn ci làmb champion la ndaanaan la nag ndax ku ko xam-xam ni ndaanaan la ndax ñim jëflanteel yëpp nit ñi gis nañ ko teg nañ ci seen bët mais du soq comprendre nga gënuñu ma métti gënuñu ma xam fu yoon bi nekk maa fi nekkoon rek di am yenn yu xam nga yu may négliger wala benn affaire mais dépassé nañ foofu na ma gars jox gars yi ma jëflante ak ñoom ah, waaw dafa waa instant yi nii xam nga lii jot jot na quoi làmb ñun dañu doon nekk nii rek maanaam nekk ay jaaype rek yu si nekkoon nii rek doon bëgg làmb rek di ko def mais jamono jii nii ay mbër lañ caaxaaneetuñ ko sax du bëre bi du du dara nag képp kuñ ci jël boo tëddee sax gaale di nelaw di nga xam ne tey jëflante na ak jàmbaar ndax fooweetuñ ko waaw maa ngi sant ñëpp waaw di bëggee ñëpp waaw di wax ni gars yi lii nii fàtte nañ ko weesu na keneen la ñuy xaar rek jëflante ak moom dem merci beaucoup ñu ngi leen di jaajëfal di leen kontaane ma leen di jox dig daje rek ci beneen daanaan beneen champion